إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله mbokk jullit yi gannaaw ba ñu santee suñu boroom ab jaam dafa war fu mu toll di sant yàlla jalla wa ala ci xéewal yim baawaan ci moom ca yam xam ak yam xamul ñi ngi seede ne moom donga yeyoo ñu koy jaamu di seede ne yonent yàlla muhammad moom la yónni woon ci ñun moom dong moo yeyoo jàngale nu ñuy jaamoo yàlla yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ña koy roy ba ila yawmi diin ñi ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla kenn ci yéen bu mu dee mukk lu dul fekki ne mi ngi jébbalul ñeel yàlla jalla waala sunu xutbab tey bi mi ngi jëm ci fàttali benn bind boo xam ne yey na ci bépp imaam mu bañ di ko gëj a fàttali mbooloo yey na ci bépp julit mu bañit bu amee bu bu mënee fa mu koy mën a gëstoo mu koy nafar fu mu mën a toll ca mbokk loolu mooy lan mooy la nga xam ne mooy ak ngëm mbokku ngëm mooy fondement bi nga xam ni mbooli mi jëf ca la tege koo xam ne ngëmam yàqu na mënatu la def lu baax koo xam ne ngëmam yàqu na mënatu la texe abadan loolu moo tax ba ñu war fu ñu toll di nafar suñu ngëm ngëm googee suñu boroom danañu ko tënkal ci aaya yu bare bari ci téereb yàlla bi bokk na ca benn aaya boo xam ne yeneen ci baal islam nee na ñaari aaya yee tëj suratul baqara day ku ko jàng ci benn guddi dana ko doy kafataahu dana ko doy ci la nga xam ne mooy zikrullah dana ko doy ci sakku tuyaaba dana ko doy ci mu wattu ko ila axiri ca mooy amana rasul bi ma unzila ilayhi ba fam jeexe gannaaw loolu suñu borom kon mi ngi ñu ciy wax ne yonent yàlla bi day lëm gëm jullit yi it lan gëm mooy dañoo gëm yàlla gëm ay malaakaam gëm ay téeréem gëm ay yonentam gëm yowmal qiyaama gëm ay dogalam loolu la ñuy gis it keroog ba muy yàlla di jàngal sahabatul kiram yónni jibril alayhi salaam mu ñëw jël melokaanu doomu aadama dafa ñëw ba ci yonent bi alayhi salaam sës ay oomam ci oomi yonent bi ne ko wax muhammad ngëm moom mooy lan yonent bi alei salaam ne ko gëm mooy nga gëm yàlla gëm ay malaakaam gëm ay téeréem gëm ay yonentam gëm yowmal qiyaama gëm ay dogalam mbokk juróom benn ponk yi mooy baasu ngëm benn boo ci weddi sa ngëm baaxatul suñu borom yàlla daal di digge ci ne ki nga xam ne ngëmam wér na mu teg ca jëf lu baax yàlla mu ne danaa ko gàddul dund gu tey ci kaw suuf mbokk dund gu tey dund texe du milliard moo koy joxe du njaboot moo koy joxe du siiw moo koy joxe tawfiq la bu yàlla subhanahu wa taala di jagleel ku ko neex yàlla yàlla jagleel ñu ko loolu mbokk mooy ngëm gu sell gu ànd ak jëf bu baax li jiitu ci loolu mooy nga gëm sa boroom mbokk gëm yàlla mooy nga daal di dëggal ci ne yàlla jalla wa ala mooy aji kenn ki nga xam ne moo bind lépp asamaan bi janti weer moo bind suuf moo bind géej man maag sama njaboot lépp loo gis lépp loo gisul lépp loo dégg nga xam ne allah mooy xaaliqu kulli shay'in gannaaw bi nga gëm ni suñu borom mooy taxawe lépp amul lenn loo xam ne dana am ci kaw asamaan ak suuf loo xam ne rëcc na borom bi moom mooy alxayyul qayyum mooy taxawal lépp jalla waala mooy ki nga xam ne moo moom lépp nguuram gi bokkaale wu ci ak kenn dara lu ko neex lay def faalun li ma yurid nga gëmit ne borom boobu subhanahu wa taala mboolem wërsëg yi nekk ci jaam yi moom dong moo koy joxe heure boo xamee ne nii jullit ab doomu aadama dem na ba gëm ne am na keneen kuy mën a def dara ci nguurug yàlla gi di ci indi njëriñ wala di ci indi lor ku dul yàlla nga jàpp ne am na keneen ku mën a wërsëgal ku dul yàlla su boobaa yaa ngi bokkaale ak sa borom suñ borom mu ne ay yéen jaam yi kan moo gàddu seen wërsëg di ko jëlee kaw asamaan ak suuf kan moo leen may bët yi ngeen di gisee nopp yi ngeen di déggee kan mooy génne lu dund ci lu dee di génne lu dee ci lu dund ana kan mooy wëlbati mbir yépp mi ngi noonu mooy indi guddeeg bëccëg mooy indi lëndëm ak leer mooy indi sedd ak tàngaay mooy indi poussière mooy indi ay lu ko neex jënd waala loolee mbokk jullit dafa war a gëm ne yàlla kese la bokk na ci gëm yàlla itamit nga xam ne loolu doyul yéeféer ya yàlla doon yónni ay yonent soo leen masaan laaj loolu lépp suñu borom nee na fa sa yaquluuna allah yéeféer bi dakka bokkaale samp ay xërëmam soo ko laajee ku taxawal asamaan yi mun a yàlla ku moom géej gi mun a yàlla tey ji it bokkaalekat yi nekk suñu réew mii di wax lépp ñu jagleel ko keneen ku dul yàlla soo leen laajoon ko bind asamaan suuf ñu ne yàlla waaye nag lan moo tax yàlla ne ay yéeféer lañu mooy dañ daan jël la nga xam ne ak jaamu yàlla la di ko jagleel keneen ku dul yàlla looloo tax ba ma ko julit heure boo xamee ni nii yaa ngi gis kuy dem di sujuutal ak rukkool keneen ku dul yàlla di rendil keneen ku dul yàlla di yaakaar keneen ku dul yàlla di ragal keneen ku dul yàlla di woo keneen ku dul yàlla pour mu xëccili ko nga la way xamal ne kooku moom mooy bokkaale mooy bokkaale kat bi nga xam ne suñu borom yàlla nee na képp ko bokkaale ak borom bi ba deeyaale ko yàlla du la ko baal ca sawara mooy sa wàccuwaay loolu ñu bàyyi ci xel bu baax am na benn mbokk bu siiw ci rajo yi day wax wax boo xam ne mi ngi koy répété répété ca mooy ku bokkaale moom yàlla du ko baal abadan mbokk loolu mooy ki dee yàlla bokkaale waaye suñu borom yàlla inna allaha yaxfiru zunuba jamia bokkaale boo mën a bokkaale sahabatul kiram quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci bokkaale lañ duggee ci lislaam teewul suñu borom yàlla da leen koo baal waaye mbir mi kay mooy deeyaale te yàlla na yàlla musul ñu deeyaale bokkaale borom boobu subhanahu wa taala kon loolu la wax képp koo xam ne nii lenn ci jaamu yàlla yi jagleel nga ko keneen ku dul yàlla yàlla araamal na ci yow aljana noonu lañ gisee kii di imaamu muslim muy génne xadis boo xam ne mi ngi ko jële ci jaabir ibnu abdullah radiallahu anhu mu ne man day dégg naa yonent bi alayhi salaam nee na koo xamee ni nii bi ngay dee bokkaale woo ak yàlla dara lu mu yàgg-yàgg da nga mës a dugg àjjana képp koo xam ne ba ngay dee yaa ngay bokkaale borom bi sawara mooy sa wàccu way loolee mbokk kon ñu nafar julli yi ak a baax nafar koor yeeg zakkaat yi ak a baax waaye la gën lañ yey ci nafar ko mooy ñu xool baa suñuy wax suñuy jëf lenn ci bokkaale amu ci loolee ñu bàyyi ci xel bu baax xadis boobee da ngay gis ne bi ko buxaari solo it noonu lañ gisee bi ko muslim solo la buxaari solo lu mel noonu jële ko ci abdullah ibnu mas'ud mbokk bokk na ci gëm yàlla subhanahu wa taala ñu gëm ne suñu borom yàlla dafa am ay tur ak i melokaan yoo xam ne moom dong mooy kaka yeyoo kenn melul ne moom suñu borom mooy ki nga xam ne as-sami' al-basir mooy aji gis lépp mooy aji man lépp mooy aji ah dégg lépp mooy alqaadir almuqtadir al aziz al jabbar ki nga xam ne dara tëwu ko jalla wa ala lépp lu ko neex mën na ko def mi ngi noonu ki nga xam ne it laa yaxfa alayhi shay'un fi l ardi wala fi sama dara nëbbuwul ci moom asamaan ak suuf loolu nag mbokk yàlla rek moo ko yeyoo julit war a gëm loolu su ko defee lam yeyoo ci tur yeyoo ko ci ay melokaan duñ ko jox keneen ku dul moom tur yooyu ak melokaan yooyu dañ ko war di ko ca ñaanu suñu borom mu ne walillahi al-asmaa'ul husna fad'uuhu biha wa zaru allazina yulhiduuna fi asmaa'i sayujzawna ma kaanu ya'maluun tur yi gën a rafet ñeel na yàlla dee leen ko woo ci tur yooyee ñay jéng ci turu yàlla yi daañ leen fay leen doon jëf su ko defee boo bëggee wërsëg xamal ne yàlla muy ar-razzaq mooy wërsëgal ay yàlla yàlla nag ma wërsëgal suñu borom yàlla lépp loo xam ne yaa ngi koy yaakaar ci moom xamal ne mooy aji maye ci soo bëggee xettili ko xamal ne mooy xettile nga woo ko ci tur yooyu nga xam ne moom la yeyoo mbokk loolu ab tënk la ca nañu war a gëmi suñu borom jalla waala gannaaw loolu ab julit dafa war a gëm ci ne borom boobu daa am ay malaaka malaaka yooyu nekkee dëkke kaw asamaan doon ay milliards yoo xam ne yàlla xam nañ toll suñu borom bind leen ci melokaan yoo xam ne seen rëyaay jéggi na dayoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis na jibril alayhi salaam nee na am na juróom benn téeméeri laaf ca bu tallalee benn laaf bi rek mën day dem penk ba sow kon seen rëyaay yàlla moo ko xam suñu borom nee na am na ci ñu am ñaari laaf am ñu am ñetti laaf am ñu am ñeenti laaf doonte ne ne yàlla mooy dolli ca la ko neex mbokk malaaka yooyee suñu borom yàlla moo leen tànn ñuy wàcc ay téere ci kaw yonent yi ka ca nekk seen jiit mu jibril alayhi salaam bi nga wat bi nga xam ne moo wàcc alquran am na malaaka yoo xam ne ñoom la yàlla dénk ñuy séddale wërsëgi jaam yi di wàcce taw fa soob yàlla di génne gàncax fa soob yàlla bi iznillah am na ci malaaka yoo xam ne nii ñoom la yàlla sant ñuy nekk di wattu doomu aadama yi yow doomu aadama bis boo xëyee xamal ne suñu borom yàlla boole na la ak ñaari malaaka bu fajar jotee ñoo lay wattu di xool lépp looy jëf ñu koy enregistré bu tàkkusaanee yeneen ñaar wàcc bu ko defee remplacer ñaar ñi fi yendu ca loolu bus bu nekk bus bu nekk bus bu nekk nga la way yow doomu aadama del bàyyi xel loolu suñu borom yàlla it am na équipe bu malaaka équipe boo xamee ni nii ñoom ñuy a jël roox yi kay seen kilifa mooy malakul mawut bu ñuy jëli jàmm bu baax daal di yor melokaan bu taaru jël melokaan ànd ak xet gu neex ñëw dalal ko daal di génne ak rooxam yóbbu bu ñuy jëli ab saay-saay ñu daal di jël melokaan bu ñanga ñanga ñang daal di ñëw daal di ñëw en jël si ko boole koog di ko toroxal ak di ko mbugal mbokk yi ak jullit da ko war a gëm noonu nit lañu yonent bi alayhi salaam waxee ni am na ca malaaka boo xam ne mi ngi tudd Israfil nee na bijjën bi ko yàlla jox yaatuwaayu bijjën ba moo gën a yaatu asamaan ak suuf benn malaaka moo sex bijjën bi mi ngi déglu arsh rahman kañ la ko yàlla di wax ay cë bu ëffee mboolem asamaan ak suuf explosé loolu kon mbokk malaaka yooyu kenn mënul xalaat la nga xam ne mooy seen kattan lu dul seen borom jalla wa ala noonu it yow jullit nga war a gëmmi ni suñu borom daa wàcce ay téere téere yooyu la yàlla wàcce ngir mu atte doomu aadama yi ci li ñuy jooyoo ci kaw suuf téere yooyu la yàlla wàcce ngir ñu jàngal nit ñi naka la ñuy jaamoo yàlla téere yooyu am na yu jiitu woon lu mel ne tawraat lu mel ne injil suñu borom yàlla joxoon ko ay yonent gannaaw ba nag la wàcc téere boo xam ne moo far mboolemi téere yi ko jiitu ca mooy alquranul karim bi ñu yor nga xam ne jurit da koo war a gëm da koo war a topp da koo war di jàng képp koo xam ne nii jëfe na alquran tedd adduna tedd alaxira ko woon gannaaw alquran suñu borom nee na danaa xatal ak dundam ci adduna même si les milliardaires danaa xatal ak dundam ci adduna ca itamit danaa ko dëkkal yowmal qiyaama mu doon ko torox doon ko silmaxa loolee suñu borom gàddu ne moom dana ko wattu dara du ko yàq ba ila yawmi diin inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizuun amma téere yi jiitu woon muy tawraat ak injil la nga xam ne mooy yahudi ak nasaraan yi jaxase nañ ko wàññi ca la leen neex yokku ca la nga xam ne mooy seeni bànneex ñeenteeli mbir bi jullit nga gëm ay yonent mbokk suñu borom yàlla niñ koy jaamoo bàyyiwu ko suñu xel ku nekk ci jaam yi rek xalaat ne lii war naa neex yàlla nga créé ko di ko jaamoo yàlla déedéet suñu borom yàlla mooy buur ca buur daa war a digle ñu jëf mbokk buur du ku ñuy digal buur dañ day dañuy topp ay ndigalam loolu tax bépp jaamu yàlla ndigalu yàlla la war a doon bépp jaamu yàlla kaka yàlla jo- jox mooy yonent ba mu yónni woon ci xeetam mu ne mboolem xeet yónni naa fa yonent commencé woon aadama yonent la woon kim njëkk yónni mu yor risaala mooy nuux mu leen di tegale di leen tegale ba kim mujjoon a yónni mooy suñu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yooyu képp koo xam ne nii weddi na ca benn moo ko weddi yépp a yem yonent yooyu ku ca dolli benn comme ni ko waa Sénégal dollee yàq weddi yépp a yem loolu ñu bàyyi ci xel bu baax bokk na it loo xam ne nii da nga ko dégg bu sam nopp guddee koo xam ne dana la waaw muhammad sallallahu alayhi wasallam gëm nañ mooy dernier yonent xaatuma nabiyin waaye ñun sëñ caam mii ñu gëm moom mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam du ñaari nit kenn ki la kii mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam loolee mbokk da ngay gis ne Sénégal gii am nañu ko fi wax isa ibn maryam mi nga xam ne mooy mujjoon ci yonent yàlla muhammad da nga dajeeg beneen sëñ saw mu ne la waaw gis nga man sëñ ndengi nii ma gëm sëñ ndengi nii mooy isa nu maryam du ñaar kenn ki la mbokk loolu suñuy wax la ngal la waay bu leen gëm loolu yàlla waxu ko yonent yàlla waxu ko amul xel nanguwu ko la nga xamee ne mooy ay nit dem di dek dundaat ka dee dundaat indo yi lañ ko xamee woon loolee mi ngi noonu su ko defee loolu ñu bàyyi xel bu baax muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy xaatama nabiyin anamu ma nga ca bàmmeelam bu tedd ba rawdatu sharif ca madinatul munawwara yàlla nañu yàlla wërsëgal ñépp ñu ziyaare ji ko sallallahu alayhi wa sallam waaye nag foo mën a nekk ci kaw suuf boo jullee ci moom suñu borom yàlla yónni malaaka yi malaaka yi dem xamal ko ne ko faccam mi nga julli ci yow ci Sénégal su ko defee mu dolli ci yow ak julli lii la ab julli war a gëm mais ku gëm ne yonent yàlla suul nañ ko Madina gannaaw ba suul nañ ko Sénégal suul nañ ko Podor suul nañ ko feneen loolee mbokk waxi jaahil la waxi seytaan yom taaral la ak lu mu yàgg-yàgg ba mu tax mu ko ngeen gëm ko wala di ci sikk sàkk mbokk suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam kon mi ngi noonu di tëj yonent yi la nga xam ne nii moom mooy juróomi lu ponk bi jullit war a gëm mooy nga gëm ne allaaxira am na mbokk lan mooy allaaxira mooy lépp lu yàlla saxal ci téeréem wala yonent yàlla saxal ko ci téeréem ci luy am gannaaw ba dee amee bokk na ci loolu gëm allaaxira mooy bàmmeel mi nga ñuy xaar ku dee rek sa àllaaxira commencé na nga doon def lu baax bàmmeel boobu day nekk ci yow jardin ci jardin àjjana nga doon def lu bon awaay nga la waay nañ la tabaxal palais or climatisé ko waaye teewul day nekk ci yow pax ci paxum sawara wal iyaas billah lii jullit da ko war a gëm gannaaw ba suñu borom danañu dekkal yowmal qiyaama yowmal xisaab lépp luñ mas a def ci kaw suuf la ca gën a néew misqaala zarra ci lu baax da nga ko gis misqaala zarra ci lu bon da nga ko gis suñu borom atte jaam yi gannaaw ba danañu séddali ci ñaari kër ña gëmoon lam gëmlu topp ay ndigalam mu wàcce leen kër gu ñuy wax aljanna ñu sax fa xaalidina fiha abada yal na yàlla boolu ñu ca ña nga xam ne nag dañ ko doon bokkaale ak di ko weddi suñu borom yàlla dajale leen tabbal leen sawara xaalidina fiha abada mbokk julit la nga xam ne mooy ponk yooyu ba ca mujj mooy nga gëm la nga xam ne mooy dogalu yàlla mbokk suñu borom yàlla gëm ay dogalam mooy nga gëm ne yàlla mooy jalla wa ala mooy ki nga xam ne moo xam lépp la nga xam ne avant muy bind ak bim bindee ak lii ñëw ba ilaa yawmi diin suñu borom yàlla lépp lu nar a am nga xam ne yàlla xam na ko loolu muy benn ñaareel ba nga gëm ne yàlla bind na lépp amul lenn loo xam ne dana am ci kaw suuf suñu borom subhanahu wa taala nee na xatta xabba benn pepp dugub fi zulumaatil ard ci lëndami géej wala xobu garab tasqatu min waraqa lu dul suñu borom yàlla bindoon na ci ab téere loo xam ne jiitu na juróom fukki junni at avant muy génn na dara le bindoon ab téere mboolem lii nar a xew ci kaw asamaan ak suuf yàlla bind na ko keroog bi ngay nokk nekk toq mani sa biiru yaay keroog bi nga waree juddu lan lan mooy sa wërsëg fan ngay deeye lan ngay jëf lépp suñu borom yàlla bind na ko gannaaw ba it yow jullit nga daal di gëm ne li neex yàlla mooy am lu neexul yàlla du am yow da ngay sabablu saay-saay bi day sabablu ab agresseur dana gàddu jaaseem dem di agressé ñu far ko faray moom lan la ko yàlla yi fii muy yéeneem doomu aadama da nga dajale say million ne yaa ngi jëm makka ndekete doo yëgg makka waaye sa yéene la la yàlla fay li neex yàlla mooy am li neexul yàlla du am loolu muy wane ne jullit kon du yaakaar ku dul yàlla du sukkandiku ku dul yàlla xéewal gu ñëw ci moom ci yàlla rek la koy sante lépp lu muy yóotu jotu ca mu xam ne lii mooy li neex yàlla mu daal di muñ muñ ko rafet ñaan yàlla subhanahu wa taala ci heure bu neexee yàlla mu am gannaaw ba it li ngay gëm ne yàlla lu ko neex mu am kon bul découragé abadan ci sa adduna loo soxla dee ko ñaan yàlla saxal di ko ñaan yàlla wërsëg la wér ci feebar la ab sëy la ak njaboot la ak lu mën a doon heure bu neexee yàlla mu dagal ko ma sha allahu kaana wa ma lam yasha lam yakun li neex yàlla muy am li neexul yàlla du am e yéen mbokk julit lii ab tënkale bu leen tënkal ci li nga xamee ni nii mooy juróom benn ponk ngëm yooyee nga xam ne yellul mukk ci ab julit muy toog ab diir lu dul nafaraat na ko xool fan la ca tollu loolee képp koo xamee ne nii yàlla déppale na ko ci mu sellal ko texe na àdduna texe allaxira ñu ngi ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala moom mii borom xol yi yàlla na tàbbal suñuy xol ngëm gu sell yàlla na tàbbal suñuy xol ngëm gu àndul ak benn bokkaale yàlla nañu yàlla wërsëgal du ñu gëm ku dul moom yàlla nañu yàlla wërsëgal du ñu yaakaar ku dul moom yàlla nañu yàlla wërsëgal du ñu ragal ku dul moom yàlla nañu yàlla wërsëgal du ñu sukkandiku lu dul ci moom yàlla nañu wërsëgal ñu gëm ko gëm ay malakaam yàlla nañu wërsëgal ñu gëm ay téeréem ci gëm ay yeneen tam yàlla nañu wërsëgal ñu gëm yoomal qiyaama gëm ay dogalam yàlla nañu wërsëgal du dogal ci ñun àdduna ak àllaaxira lu dul lu ñuy texeel àdduna ak àllaaxira allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar rabbana la tuzig qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahuma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna bi rahmatika min ar-rashidin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين العالمين